mbokk yi sëriñ Abdul Aziz Diaw di ku ñëpp ràññee ci wàllum ñaan yàlla boroom xaalima gi du laal suuf macha allah laal leen bant xam-xamam ak gëstoom ak ragal yàllaam loolooy li sabab réew mi yépp ak bitim réew jox ko bopp ay li ko wut xam-xam jaral gëstu xam-xam daf koy jaral dem fépp ci biir réew mi ak sax bitim réew daanaa leen wax lii di sedd li saxaar Afrique moom gisuma ku ko ci man Serigne Abdoul Aziz Diaw ni ma bu maa ngi feeg mbir mu yéeme sax ah waaw lan la mu ni ma xanaa li ñuy wax xorom si lan mooy njariñu xorom si mu ni ma bépp diggante bu yàqu bépp diggante bu ñagas xanaa dafa fekk amoo ci xorom si waaw waaw secret bu doy waar la ci boole Serigne Abdoul Aziz Diaw mooy borom rus na maa xam nit ñu di ko jàpp ci gàllaaj rus na maa xam nit ñu di ko néewal doole ci xam-xam sangatu bayre moom benn la ci Afrique lépp lu jëm ci muslaay kaaraange dawal seeti Serigne Abdoul Aziz Diaw ma nga fële ca cees ca quartier ba ñu duppee Serigne Abdoul Aziz Diaw yow mi lijjanti ay kayit mu tëla gàllaaju kër xale bu të ay mbokkam bu lu jëm ci wàllu plante kenn mënu ko ci ci réew mi ci góor gu néew kattan hémorroïde jigéen guddul yëg bànneex Sëriñ Abdul Aziz jaw mi ngi ceeg lu yéeme sax yow mi bëgg a jokkoo ak moom 77 571 87 wala 78 469 92 92 waxoon naa leen ni leen bu ngeen deeti ñaan looti nit seeni mbir daw leen seeti ku ragal yàlla te am xam-xam Sëriñ Abdul Aziz jaw moom ma ci doy su ngeen bëggee dégg dëgg daal Sëriñ Abdul Aziz Diaw ku mel ni moom ci Afrique benn la fi. ñu ngi leen di siyaara euh, bu baax a baax ñu dem kon directement ci euh, li nga xam ni moom mooy euh, dernier élément bi muy daal Ousmane Sonko mooy tête de liste bu Pastef loolu yi leer na naññ waaye nag ñi nga xam ne ñooy coalition sàmm sa kàddu Barthélémy Dias la ñu gis ca bopp ba Ousmane Sonko nag moom la mu doon ak Bart la mu doon dañu ciy déglu journaliste judiciaire bu mag bi di Daouda Mine ma ca Télé Futurs Médias lan la ci wax ñu dellu si waat pense que li may wax c'est sous réserve de li nga xamante ne moom la conseil constitutionnel di décider. Ah, mais tey ji bu fekkee nañ commencé ci Ousmane Sonko. élection présidentielle bi passé le même conseil constitutionnel dafa invalidé woon candidature am parce que tout simplement dañ ko condamné woon à quatre mois assorti de sursis dans l' affaire Mame mm. ci loolu lañ basé woon pour invalider li nga xamante ne mooy candidature am. c'était pas par rapport ak l'affaire Sweet Beauté bu nga xam ñu ngi doon wax ay radiation di yéeg a ko wàcc mais li taxoon bokkul ci élection mooy les quatre mois assorti du sursis bi nga xamante ne dañ ko condamné dans l'affaire Mame Mbaye Niang mm. ci loolu la conseil constitutionnel basé woon pour wax ni mënul bokk ci élection bi en vertu des dispositions de l'article L30 bu code électoral mais après l'affaire Mame Mbaye Niang dafa bokkoon ci euh, amnistie bi mm. ce qui fait que aujourd'hui au moment où on parle Ousmane Sonko nekkul ku nga xamante ne Euh, am na lu ko mën a tere mu bokk ci élection bi nga xamante ne moom lañ jublonee mm. Barthélémy Diaz dañ ko condamné woon dans l'affaire Ndiaga Diouf à deux ans dont six mois ferme mm. six mois yu nga xamante ne tëddoon na ko ba pare mm-hmm. euh, tribunal correctionnel bu Dakar kondaane woon nañ ko condamné woon ko cour d'appel bu Dakar confirmé ko et le 22 décembre 2023 cour suprême daal di koy confirmer définitivement mu nekk une décision définitive à partir de ce moment là suñu appliquer les dispositions de l'article L29 euh, bu code électoral dafay nekk ku nga xamante ne warul nekk ci liste électorale yi mm. loolu la code électoral code électoral wax mais est-ce que entre temps rajo nañ ko ci liste électorale yi wala rajo wuñ ko ci liste électorale lool nag dafa nekk lu nga xamante ne leeruma peut-être bu ñu demee ba ci conseil constitutionnel conseil constitutionnel dina ko dina ko décider toujours est-il que keroog bi nga xamante ni am na condamnation définitive bi il suffisait tout simplement que ministre de la justice de l'époque Aïssata Tall Sall ci boobu demandé woon sa radiation ci liste député yi dafay nekk lu nga xamante ne dañ koy acté parce que lool la lool la constitution bi wax loolu la euh, euh, règlement intérieur bu assemblée nationale wax. donc mandat député bële sax nga xamante ne amoon na ko député euh, assemblée bi nga xamante ne dañ koo dissoudre récemment ne. mandat boobu dès l'instant où condamnation définitive mais amoon le 23 décembre. il suffisait tout simplement que ministre de la justice demandé woon à ce que ñu rajo ko de la liste des députés à partir de ce moment là Barthélemy Dias doonul woon doonul woon nekkati député donc nag partant de cela on se dit que bu fekkee ne euh, ndegam boobu mënoon na bañ nekk député aujourd'hui su fekkee ne déposé na également si on se base sur les dispositions de l'article L29 soo moytuwul encore une fois je mets une réserve parce que conseil constitutionnel moom mooy décidé soo moytu bu demee conseil constitutionnel dinañ ko écarter tout simplement en vertu des dispositions de l'article L29 du code électoral mi ngi noonu moom Daouda Mine wax na ci Assane lu jëm ci wàllu ñoom ñaar ku ci nekk bu dee Barthélémy Dias defe naa condamnation ci wàllum Ndiaga Diouf daf ko doon yóbbu ci cinq ans yoo xam ni ci la war a toog avant muy nekk euh, candidat pour mën a présenter dem ci ay élection mais bu dee Ousmane Sonko leeral na ko ci ni nga xam ni noonu la ko euh, kii bi yóbbaale yóbbaalee amnistie bi lu jëm ci wàllu 2021 ba 2023. waaw am na solo jàngat ñaar rek. Mm-hmm. bu dee si wàllum bu Ousmane Sonko bi moom. waruñu ko laxas si ay naan hmm? bu dee si wàllum Ousmane sonk waruñu ko laxas si mbiri NMC xuma ndax loolu ñu si bëri fii dañ ne ay caaxaan la dafa war a deñ lan ci amnistie waaw daa war a deñ daa war a deñ ñu bëri nga ne ñu bëri dañoo wax loolu ñu bëri dañ ko wax ñu ëpp si Sénégal yi waaw mais dañ koo voté la hmm? dañ koo voté dañ koo voté mais dama ne ñu ëpp senegal Sénégal yi ànduñu si nee nañ ay caaxaan ah ñi ëpp ñu ëpp si Sénégal yi d'accord ànduñu si nee nañu ay caaxaan la kon nag buñ ko soxlaa tey ji si point bii nañu jàpp ni rek ay caaxaan la kon soxlawuñ ko fi mu toll nii. Mhm. soxlawuñu ko soxlawuñu ko donte nag am na. Mhm. kon léegi nañ xool ba xam Ousmane Sonko laa ñaari weer wala ñetti weer loola jàll na wala jàllut ak bu fekkee ñaari weer lañ la daan ñaata waa nga war a mën a toog pour mën a jiite dara. Mhm. ñaata at nga war a mën a toog pour doon jiite dara loolu lañ war a xool. Daouda miin waroon nañoo leeral ni diggante bi Mame Mbaye Niang dañ ko daan trois mois. moo taxoon mënutoon a bokk ci élection yi. kon déglu nga élément maa ngi ñëw mais daan trois mois googu nag ba tax bokkut pour nga mën a bokkaat ci élection ginnaaw trois mois lañ la daanoon war ngaa mën a toogaat yeneen deux mois. Mhm. wala war ngaa mën a toogaat at wala mu leeral ñu foofa doog a mën a bokkaat ci ay élection mhm. waaye nag bu ne loolu lañ ko daanoon te loolu anamisi bi yóbbaale na ko. Mhm. duñ mën a xam ba xam. bu fekkoon du amnistie bi du amnistie bi duñ mën a xam ba xam ñaata at la waroon a toog wala ñaata weer la. waroon a toog mais loolu koy jéggi léegi Assane. comme nee nañ amnistie bi dafa ñëw yóbbu loolu. déggoo ma de amnistie bi laa ne buñ ci d'accord. buñ ci d'accord. waaw bu fekkee ko maam bu fekkee dañ ko bañ a indi maam dañ ñu waroon a jàngal. waaye léegi le fait que léegi d'accorduñ ci waaye bi ñëw na ñëw na def nañ ko. Hmm. génne nañ ñii ci prison yi. def nañ lii yóbbaale nañ lii ñu ni ba mu des ñi ay ah, sàcc alalu Sénégal bokku ci xam loolu la ñu waxoon. ku wax bokku ci. d'après li ma xam loolu la ñu wax. kan ma ko. mais su doon loolu kon duñ duñ. ah voilà mooy loolu nag. <laughs> fi mu nekk nii ñu ngi woote rek. waaw xamuñu ba xam lu. léegi moo tax ma ne comme léegi amnistie bi am na ba pare. Hmm. yóbbu nañ loolu léegi li ci des mooy. mais mais dama la. waaw maanaam njàngale mi dafa waroon a gën a leer. yow loolu ci lu ci lëndam. mooy tey jii ñu mu ni bu fekkee dañ laa daan trois mois. Hmm. war ngaa mën a bu daan boobu jàppee xam nga bu ma am mbay ñaa bi bu jàpput. Hmm. ndax waxoon nañ di joxe xaalis ju ñu dërëm du ko laal. Ousmane Assane da ngaa réer xanaa. réeruma de. waaw ci ñoom. daanu maam Mbaye bi dañoo dañ koo daanu Ousmane Sonko ni ko yaa koy jox xuma ñaata si xaalis. Mhm. Ousmane leen joxuma leen dërëm. waaw dërëm maam fukki dërëm maam Mbaye du ko laal te ba léegi maam Mbaye laalu. kon mhm. daan boobu ñun dañoo jàpp ne ab ab kii la woon rek lu fi jaaroon. ndax bu mhm. yaakaar naa bu tege woon yoon Ousmane Sonko dana def li nga xamante noon loo ko yoon sant. mais tey jii dama ne bu fekkoon ne maam moom moom moom mii di jàngale nee nañu. Hmm. bu fekkee dañ laa daan trois mois. waa Assane doo jéggi trois mois yi. mënuma koo jéggi gul damaa bëgg foofu leer. boo d'accord rek damay daal di jàll. waaye léegi d'accord xam nga man lu ma d'accord loo d'accordul ak man. Hmm. maanaam damay la Assane lii ngay wax yépp Macky Sall. Hmm. moo yëkkati ab loi d'amnistie mm-hmm. yóbbu ko assemblée national mm-hmm. ñu voté ko loi ba jàll mm-hmm. léegi ñu effacé diggante deux mille vingt et ba deux mille vingt trois li fi amoon xam nga loolu kon léegi effacé nañ ko léegi ñu ne Ousmane Sonko mooy nekk euh, moo jiite li nga xam ni moom mooy euh, liste boobu yi léegi nag problème bi mooy ñu ni Bart lu tax gaa ñi teg ko ci tedd mu nekk tedd liste euh, wóolu sa kàddu xam nga sàmm sa kàddu. Mm-hmm. te moom dafa am condamnation bu koy may cinq ans. mu mm-hmm. ndogo ne candidat. moo tax ma lay leeral li ma lay leeral li nga wax première sapote bi laa comprendre li nga wax. waaye lii ma la wax comprendre lii ma la wax ne première sapote dama ne la. Mm-hmm. Daouda Mine bi mu ñëwee di ñu jàngal. dafa ñoo waroon a wax nii. bu fekkee dañ laa daan trois mois. ma nga ci daaw de. bàyyil dañ laa waroon a daan àddina nii la mettee di. ah bàyyi ko rek ñun ñuy souffrir. fii mu bëgg a dugg souffrir ma ma jàll su ma bàyyoon ma jàll la weesu naa. déedéet Assane ci parti gi lay bañ jàll. Assane jàll na parti gi laa jëm ma jóge Sonko. parti gi laa nee naa la effacé nañ ko. non non mënuñu ko effacé. bàyyi ko mu jàll rek bàyyi ko fu mu dugg bàyyi ko. waaw moo gën de defal nii El Hadj def voilà léegi leeralal. <laughs> léegi daf ñu war a na leeral. ni ñu boo ñu la daanee trois mois bàyyi leen rey il faut ngeen arrêté rey yi may ma ma àggale ngeen di diglu buñ la daanee trois mois war ngaa toog six mois doog a mën a jiitewaat dara wala mën ngaa toog un an doog a jiitewaat dara mu ne waaye comme que nag. Ousmane waroon naa toog 6 mois doog a war a mën a jiite mais la tax mënut ta toog 6 mois doog a jiite kat lii moo ñëw faxas loola kon moom mën naa jiite ndax lii faxas na ko mais waroon nañoo mën a leeral leeralal bu fekkoon faxasuñ ko lan la war a toog doog a mën a jiite hélas il faut ngeen eh, ngeen arrêté yi ndax li may leeral nii day lu am solo lii dafa technique xam nga bu technique ñàkkat yéen di ngeen di reetaat dafa technique si yéen moo tax xamu leen ko dafa technique man ni li may wax dafa technique il ngeen technique doo ko mën a xam. yaa ngi door non non li dafa technique wër na yàlla dafa technique man lu technique laa leen di wax info faut ngeen déglu technique bi. voilà ah, kon. bu ñu leeraloon ni. 3 mois bu ñu la daanee trois mois. da nga war a mën a toog yeneen trois mois doog a laaj. mais la tax mënut te toog 3 mois doog a laaj kat. amnistie bi moo ko dindi. nga xam ne ñun danañ xam ne kon tey. bu doontoon amnistie bi Sonko dina toog lii mais nit ñi xamuñu bu doontoon si lan la Sonko war a toog doog a laajaat xamatuñu ko ndax àggu sa kon saa war na àgg beneen bi Barthélémy Dias xam nga moom leeral nañu ni moom lii ñu ko daan lii la war a toog doog laaj loolu la ñu war na leeral ci Sonko ñu xam bu ne lii daan Barthélémy Dias kat Barthélémy Dias lii la toog doog laaj lii la war a toog doog laaj léegi ñun xam nañ parti lim toog lim war a toog doog laaj léegi nag parti toogul loola laaj te it ñii nga xamante ni ñoom ñoo yor kàddu gi xam nañu hélas da ngay jël de danga koy jox de yàlla xam na ndax man lii lañ lii dafa metti ndax mënoo di liggéey liggéey bu technique non non mënoo di wax wax ju technique ñoom xamuñu ko ñu lay reetaan wax ji dafa technique <laughs> non li may wax dafa technique ah, dafa technique dafa technique wax dëgg yàlla technique la. waaw ah, lii technique la lii moom technique la. technique la. Ah, joxe hélas. loo fi wax. ah gën a. parti no parti laa yaa ngi ci parti. <laughs> Ah, àgg naa ci xam nañ parti wax nañu moom moom Daouda parti lan la war a toog doog a laaj. waaw léegi yow Assane lii nga fi wax yépp nii. Hmm. même kii seetaan moom Daouda wax na ko loolu noonu. Hmm, déedéet waa diglu rek. déedéet waa diglu dama lay wax. léegi loolu lépp wax Daouda wax nañu ko wax nga ñu mais dama ne ñëwal ci lu tax wóolu sa kàddu ñëw def ko ci tedd liste bi. lu tax ñu def ko te ñoom ñuy ay borom yi xam-xam. xam lu tax ñu def ko tedd liste nekk ay am nañ ay juriste am nañ hmm. ay avocat doon boroomi xel lu tax ñu def lool xam nga lu def ñu tax ñu def ko ci li tête de liste bi. Ah, am nañu xam-xam jàng nañu xam nañu daan bi ñu daan Barthélémy Dias. Hmm. Barthélémy Dias dégg naa ñu ni maire de Dakar mënu koo laalaat bii di ñëw. moom xam nañ ko gars yi d'accord nañ ci. mais est-ce que élection yi député ci la bokk ci daan bi. est-ce que ci la bokk élection rek lañu wax. non du élection du élection rek. élection du élection lii moom dafa technique. dafa technique. lii nag bu technique doo ko mën a xam il faut nga xam ne ñi technique man ñoom lay waxal nit ñi am na ñoo xam ne dañuy nekk si commentaire yi technique guñ xamuñu waxu technique ñuy dugal ay kaas sàngara ñoo xam mais li may wax mun dafa technique il faut nga nga nga nga technique doog koo xam léegi ñoom xam nañu bu baax la tax ñu jiital ko bu buñ ko xamutoon du ko jiital wax naa ko da ko mënu dégg joxe hélas man asal li bi mu nettali sama xel dem ci waa ji waa ji ni woon mm-hmm. ki dee juróomi avant moo dund mm-hmm. mi ngi doon dund juróom minute avant muy dee. avant ngi doon dund. Mm. man loolu la nangu dégg te ma koy wax maanaam bi trois mois yi muy tax naan daaw dañoo waroon wax Sonko ci lii mais du temps yow bi nga ñëwee pour ñu gagner du temps bi nga moom laa wax booy jàngale xam nga Sénégal dafa naqaree jàngale. mais loolu weesu nañ ko booy jàngale da leer rek waruñu ko weesu danaa war a ni lii de mais yow loolu bañ cay toll jur si leeral xam naa ko dafa war a mais mais bii laa wax waxuma loolu de dani dafa war lii de nii la waroon na demee mais comme que lii dindi na ko nag mënut a demee noonu waaye léegi nii lay demee loolay wax ji mais daa ñëw rek daan ni lii de nii la demee ndax tax mu demee nii. dafa technique mais àggut sa lële. dafa technique daa waroon a lii de. dafa technique nii la demee. technique waaye nag nii lay demee ak nii. mais nag lii moo ko dindi moo tax mënut a àgg ca lee léegi nii lay demee. mais bu ñëwee rek daal ni mbir mi kat nii lay demee ndax administratif bi tax nii lay demee te àggoo ca lee duñ mën a xam léegi nag moo tax ma ko doon jottali waale ñuy diglu pour ñu mën a xam dama leen yërëm ñi nga xam ne ñoom nañuy seetaan ma leen di jox ay information yu leer ba pare di leen jox léegi ni nga xam ne débat bi léegi dafa technique il faut ñu xam <laughs> il faut ñu xam ne débat bi dafa technique léegi baax baax na baal ma jox sa waay alaaji bu fekkee technique ci yow nag nga teel a teg affaire ci suuf hmm. ñu tàggoo waaw Daouda miin dégg nga li mu wax ci diggante ñaar ñi. Mhm. maanaam ñoom ñaar sax euh, jàpp naa ne mbir yi du combat te bokkuñu ay mbir. Mhm. ndax man mi xamul wàllu droit rek après comprendre naa mbi comprendre naa mbir yi bi fi am na si jaaree. après nag laaj bi mooy. Mhm. lu tax yeewi askan wi xam ma wàllu askan wi xam ma sàmm sa kàddu ñëw tabb baat ci kanam. waaw. waaw Assane xam nga pour dimbali la tuuti mi ngi mel ni rek fii studio bi. Euh, ñu ne la Assane. boo demee ci studio bi contact bi taal làmp bi eh, mi ngi ci. sa droite bunt bi. Mm-hmm. yaa ngi dégg. léegi ma a bëri di dem far am kotaal. nga ñëw fekk làmp bi tàkk. Mm-hmm. nga naan waaw léegi contact bi moom. lan moo doon xew bu fekkonte ni ñëw naa fekk mu lëndëm nga ah, nekk ca lëndëm googu nag yow di ngën ngëri ah? hmm. mais fekk na yow làmp ba tàkk taal na ma taal nañ ko pare a ne bu fekk bu ma fekkutoon mu tàkk de fii laa war a nekk ci bu ma fekkutoon mais boo fekkee mu yow doo dem jëli ji li nga soxla rek te xam ne loolu amatut maanaam nekkatut hmm. yow li ngay posé romb la ne parce que dindi nañ ko maanaam nekkatu fa hmm. comprendre maanaam yow dindi nañ contact waaye làmp baa ngay tàkk léegi maanaam lépp leer na daa waroon a jàngal maanaam yoon wi lépp leer hmm. léegi na yow nga taxaw naan waaw daa war a leeral parce que dafa war a am contact. Hmm. léegi dañ bu léegi contact bii. bu hmm. fekkoon ne lampe bi tàkkul. nu may def léegi yaa bu fekkoon ne lampe bi tàkkul kon nan laa war a def parce que fii man gisuma fi contact. te lampe bi tàkk na. te lampe bi tàkk na yow léegi yow foofu nga ne. sa ah, technique boobu nga nekkoon. <laughs> sa technique boobu nga nekkoon. waaw maanaam yëf yi dafa leer. ba pare nga ne léegi bu lëndëmoon. waaw bu lëndëmoon. dugal ñu ci lëndëm. Eh, Assane Assane day seet. ñu war a jàngat ñun loo xamante ni bii amul. ñu ne waaw bu lëndëmoon léegi nii naan na di ne loolu bu boobaa dañuy nekk ci fiction la ñuy nekk. maanaam dañuy nekk ci loo xam ne amut existé tout. Mm-hmm. Euh, man nag par contre man peut-être mën naa wutee xalaat ci ñu bari ci yëf yi. Mm-hmm. mais man Bart damaa bëgg mu jàll mu dem ci élection yi. da ko bëgg. waaw parce que li tax ma bëgg Barthélemy dem ci élection yi. Mhm. Barthélemy kii de motivé motivation parce que Barthélemy dañu am ak moom combat. yéen waaw combat bu mag. yéen ñëpp waa Ndakaar. <laughs> dañu am ak Bart combat bu mag a mag a mag. nee na ngeen nekk ay nit. li tax ñu am ak moom combat bu mag a mag Bart dafa taxaw fii. Mm. ne mooy boroom Dakar. waaw waaw tamit dëgg. maanaam dafa défier ñi ko yóbbu ci ndakaaru hmm. ne leen yóbbuwu leen fa man maa am nit ñi. te mu hmm. leer ñëpp ni. Pastef fa ko dugal. ci biir Dakar élection yi passé tàqali na waaw leen. non non mais dafa war a gën a tàqali ko. Hmm. non xam nga bii daf ñu def xam nga boobaa bii ñu def ko mu nekk tête de liste. jiite ndakaaru bu ko defee ñu wan ko li mu tekk ci ndakaaru bu ko defee mu xam boppam un bon faa pour toutes mu jeex mhm. parce que Barthélemy maanaam dafa mer dafa tolloon période boo xam ne dafa merloo nit ñi ok taxaw di fëgg dënnam wane ni moom mairie bi kenn joxu ko ko loolu nag dafa war a ñëw mhm. waaw man moo tax Barth bëgg naa mu xam boppam dëggantaam maanaam mu xam li muy peese léegi ñu ko tuluwaay bu gaa yi jaaree buñ ko kiiwee. Hmm. day am prétexte. day wër dinañu wëraat pendant fi ba ay élection di ñëwaat di fa gën dañ maa ragal dañoo def nii dañoo def naa après ci loolu la ñuy ne. ok maanaam élection yi élection la yoo xamante ni képp ku jógoon pour voter. Hmm. pour président Diomaye Faye nekk président. Hmm. bu doon yow voteloo nga benn nit. da ngaa war a voteloo ji ñaari nit. Mhm. parce que élection yi lenn la pour wan système bi ne leen. Mhm. Sénégal suur na leen. Mhm. élection yi loolu la war a wane. dafa war a wane ne système bi ne leen Sénégal suur na leen bu ko defee leneen judd loo xamante ni bi liy juddu nekk ay politiciens yoo xamante ni bi danañ xam ni Sénégal ga woon démb. nekkatut. Sénégal goo xam ne dangay neexal nit ñi di leen jox xaalis wala di def yenn yi. Mm-hmm. pour di gagner di kii. carrière ñu bari ñoo nekk en jeu de carrière politiciens yi ak journaliste yi nga xamante ni bi ñi ngi ci kii di manipuler. Mm-hmm. ñoom ñëpp seen carrière mi ngi en jeu fi mu toll nii. am na ñoo xamante ni bi dañuy nekk ak chroniqueur yoo xam ni dañuy nekk ci télé yi euh, lu ñu leen di jox moo tax ñuy wax. Mm-hmm. comprendre façon boobu yëpp nag pour éliminer lu mel noonu dootul amati ci réew mi. mooy nga def vote boo xamante ni bi moo ñuy tàqaleeg loolu bu mhm. boobaa dinañ mën a tabax réew mi ci jàmm ak salaam mhm. dinañ am opposition bu responsable bu am xam-xam boo xamante ni bi dinañ ah jot na nag léegi Sénégal nag mi ngi soog a jot mhm. ngir ñun ñu dugg ci politique d'accord parce que dafa am ñoo xamante ni bi dañoo jéngu seen carrière jéngu seen lépp pour yegsi ci yëf yi mais ginnaaw buñ ñu yegsee ci yëf yi am na ñeneen ñoo xamante ni bi dinañ ah kon nag léegi nag Sénégal comme que tollu na fii man mii war naa mën a dugg ci di nga gis ay borom xam-xam pas mu nekkati borom làmmiñ yu rëy yi nekk fii di ñu fatt ak yooyu. Mm-hmm. ñoom ñooy nekk ñi kii mais ay boroomi xam-xam ñooy jóg. Mm-hmm. opposé wu fexe euh, fexe da nekk opposition bu responsable. Mhm. boo xamante ni bii bu ñuy wax di nga xam ne ñii ay boroomi xam-xam yuy wax lañ. Mhm. mais nekkut ñoo xamante ni bii vraiment. Mhm. Euh, dañoo mel ni ku jóge ci may gaba rek di nettali lañ fa lekk ci nen. Hmm, d'accord ok waaye léegi nag le fait que ñii di bor ay boroomi xam-xam dañ ci réer jiital ko nag. Hmm? maanaam ñi ko jiital. ñu jiital kan Bart non système bi dañoo am ci moom yaakaar xam nga lu ñu am. Oh. ñoom fi mu toll dañuy defee non ñoom xam nañu waa ji mi ngi condamnation. bi nga xam ne ñoom c'est que mu toll ni tey man dama ne. jàpp naa ne li tax ñu jiital ko. Hmm. Euh, bu ñu leen galgalee. ñu wut prétexte. Ah, maanaam kon pare wuñ. waaw mën nañu bañ a pare ba daal di wut prétexte pour euh, gën a mën a opposé wu. way way gis nga à chaque fois dinañ wut pexe pour nekk pour nekk fi di ma lang-lang. waaw parce que xalifa euh, killing pure mhm. killing waaw ñeneen ñi ne fa anta ñoom kii ñu ni léegi Bart demal moom mi ne ci condamnation mhm. loolu day pour lëjal day tey xel pour lëjal yëf yi pour après ñu mën a toog di wax naan woy way parce que ñoom ñëpp xam nañu élection yi ay élection yi benn waaye da laa dégg muy jaay baatin hmm. Doudou Coulibaly Doudou man nen élection yi xam naa dinañ ne sax Doudou Coulibaly dinañ ma vaar wala ñu dugal seen son yooyu son reetaan boobu Pastef da koy ñàkk. nee na Pastef da koy ñàkk wala bu dee daa dëgg bu ñu demee ba élection yi romb ci laa leen di wax lu tax ma waxoon ko. ah day gisaade léegi. Doudou Coulibaly. dóor bari xam nga moom nee na dafa yàgg ci politique politique yu njëkk ya la yàgg politique bi beneen politique la. d'accord seen bu ngeen basé woo ci seen calcul yu njëkk ya. Hmm. naax saay de. d'accord calcul yu njëkk ya doxatul de.